excuse euh, appel moo ko daggoon nii léegi léegi ma ne ko Binta wax ma yéen lan ngeen def lan rek ngeen def yéen ba ba instant man sama der mu ngi yaa ku ne mu ngi may woo sama yaay mu ngi ma woo léegi nii di ma wax ay affaire audio ki kenn xamul sa voix lañ dégg xamul lan si la ma expliqué mu ne ma man ñun dañ la buggoon espionné dañoo jël sa voix léegi keneen mooy wax dañuy jël sa voix dugal ko xam nga yow yaa ngi fréquenté foofu fa ngay toog ñu defar suñuy affaire pour mën a dugal euh, billaay wallahi tallahi barki alxuraan karim maa ko woo téléphone mu ma ko nii ma jël euh, batteru kii euh, ki yor piano euh, waali benjamin ma woo benjamin ma ne ko benjamin rakki laa soxla rakki ay dara mu ne ma lu xew ma ne ko liiral la youtube bi am na benn audio bu fay dox mu ne ma mais lii dégg naa ko mais seetlu ma yoon bu baax mu xool ma mais booy si lii sa voix la lii dama ko ma jël sama numéro déedéet mu envoyé ma numéro rakki ma woo Racky ma ne ko Racky yow xam nga ma mu ne ma xaw ma la ne ma ne ko man maay Jules gis nga vidéo vocal bi ñu def vocal bi ñu dugal YouTube man la man lañ ci man lañ ci dugal lan moo tax ngeen def loolu ak yéen fan ngeen jëlee sama samay samay vocal wala sama voix mu ne non abindooy Ndoye Bintaloo moo ko envoyé Abi abindooy Abi jël ko dugal ko dem jox ko xaw ma benn technicien la xaw ma lan mu dem defar ko monter ko ñëw ñëw ñëw kii la ñëw dugal ko kii euh, YouTube pour mën a kii pour mën a vance wu ma ne ko leen boo leen jël ak kii mu ne noonu loolu rek lañ ne carrément yow yaa ak ñooñu yéenay fréquenté billaay bi nii la demee na yàlla man daf ma soge xaw ma affaire bi lan la ku nekk di ma woo di wax affaire bi jaaxal ma dama mujjee jël dugg internet jël gis nga site yi ko dugal yooyu yëpp ñoom ñëpp woo naa leen téléphone ma ne leen man lii ñu def nii dañ ma ko sosal dañ ma tooñ billaay wallaay ma tooñ sama yaay suba suba suba ah billaay wallaay wala li ma lay wax day plainte sama sama sama kii bi sama cousine bi nee na suba da kay jóobu si yoon billaay wallaay tallaay wali war na alxuraanu karim dañ ma tooñ billaay wallaay tallaay li ma lay wax nii dañ ma tooñ tooñ nañu ba si kanamu yàlla nga woo ma di ma wax ay wax di ma wax ay yow si lii ak li man ñaan ñaan jiwalu ma loolu billaay wallaay ñaan jiwalu ma loolu barki alxuraanu karim man li may dund fii rek man dafa métti taluma sax nekk fi di lijjanti ay affaire ak leneen ak leneen leneen wali billahi wallahi talaay barki yàlla am naa lu ma metti trop trop trop trop billahi am naa lu ma metti am naa lu ma metti trop trop billahi dañ ma tooñ billahi sama voix lañ jël dem dugal ko ci ay audio dem defar ko monter ko ah ñëw ne dem dugal ma nii lii fan laa koy waxee fan fan fan laa koy waxee man wali billahi wallahi affaire bi nii la demee billahi wallahi léegi ay dara dama ko woo wax ko ne ko man mii ngeen tooñ billahi wallahi ñoom ñëpp ñu may woo fii ni ma baalu barki salaatul fatiha billahi wallahi abindooy sànq daf ma topp mu ne naa ko jox numéro ñaan parce que ñoom dañ ma tooñ billaahi daf ma topp mu ne ma jox ma numéro ñaan ma woo ko ma wax ak moom parce que ñun ñoo la tooñ billaahi wallaay wali naam xam nga sànq yaa ngi rëpp di ma saaga di wax affaire yi kenn xamul man lii man sax daf ma metti billaahi wallaay talaay je nga man ñaan jiwuluma ma loo xamante ne man war naa ko mën a waxal lu ñaaw wala mu def ma loo xam ne war man war naa ko def lu ñaaw au contraire man damay ñëw seen kër damay jox ma lekk ñaan daf may jox ma lekk waaw jàmm laa sekkal moom xamulu ko dara xamaalewu ma ko dara Marie Louise xaw ma ko xamaanu ko gis nga bi coow yi amee noonu man bi ma la envoyé noonu affaire yi noonu ci ngoon xam nga dafa am sam benn cousine boo xam day ànd ak ñoom rakki lay àndal benn cousine yaayam euh, ak sam papa ay cousin ay cousin cousine lañ quoi Binta mu woo ma mu ne ma yow Gilles du médecin nga nekk ma ne ko waaw may médecin mu ne ma da nga xam ñaan ma ne ko xam naa ñaan bu baax kay mu ne ma yow Marie-Louise dafay ñëw foofu médecin ma ne ko marie kan mooy kooku mu ne ma te mu nekk si coowaleeg rakk yi ma ne ko non Marie-Louise moom mosuma ko gis médecin xamee ma ko fii sax médecin mosuma ko fi gis kër ñaan moom dem naa fa moom maintes fois mais mosuma xaw ma kan mooy Marie-Louise mosuma ko gis foofu. mun Moussil wax ma rek ñun instant dañu bëgg ay information yu leer mané ko billahi xaw ma ko boo bëggee information man ci man nga koy nga koy jaarale mu ne noonu dama xam ne yow yaa ngi mes te yow da ngay fréquenté da nga leen di fréquenté ma ne ko billahi xaw ko wóor na yàlla léegi tey dama toog bi ne taa ñu woo ma noonu ñuy waxtaan mu ne ma yow gis nga sa audio yi xaw ma lan ma ne ko fan audio lan mu ne ma xoolal internet yu ngi youtube xaw ma fan sa baat la ma ne ko sama baat man mu ne ma waaw ma jël sama téléphone ma woo sama cousine bi ma ne ko yow keroog bi nga may enquête affaire yooyu noonu yow lan nga def ba ba jël sama voix wala dara ngeen dem xaw ma da ngeen def jël sama voix yi dem dugal ko xaw ma youtube xaw ma lan mu ne ma man ma ne ko waaw mais keroog de yaa yow ma laaj si affaire ñaan fii yaa ma ci doon laaj de mu ne ma attends xaaral ma xool laaj ñoom abi mu jékki-jékki ma koy waat nangu ma jël ma woo ba sonn nangu ma jël ma waat ko ma ne ko bind wax ma.